waaw asalaamaaleykum ah, toute la diaspora sénégalaise Modou Modou Fatou Fatou ñu ngi leen di yooyu ñëpp ak waa Sénégal yëpp waaw comme ni ngeen ko gisee nii maa ngi nii ci cimetière bi waaw nga gis ni euh, dëgg yàlla àdduna bu ñu la naan àdduna amul solo rek li moo tax ñu wax quoi parce que ñëpp fii la ñuy fii la ñuy mujjee te lii dafa jara lii dafa jara bàyyi xel waaw bala xoolee gis nga cimetière u euh, Amérique yi nu ñu mel donc boo xoolee gis nga ñi fi tëdd yëpp tey nii mu noo xàmmee kan moo ci riche wala kan moo ci pauvre kan moo ci waaw soxoro nag kan moo ci baax ak àdduna baax rek am solo te lii lii dalay lay won ne ñun fii la ñuy mujjee donc waaye ku ci nekk rek bu yeboo na nga yéene sa morom kanam surtout ci koor gi dégg ñaan yàlla ñi ñi surtout senegale soppi seen xol ak seen xalaat seen xel ak seen xalaat parce que soxol beeg ñaan beeg liggéey beeg yooyu yëpp ñu koy def loo xam ne c'est gratuit xam nga tey lii lii def ñuy jàngal ba pare man li ma gën a ci lii mooy Euh, li ñuy xëccoo ci àdduna yëpp neex na trop nit ki réussir mais fii la ñuy mujjee te yaakaar naa ni fii nga xam te ni foofu la ñuy mujjee dafa waroon nekk loo xam te ni au moins lu rafet la boo xoolee gis nga dañuy def sa tour def ci sey def ci ay fleurs xam nga def ci tableau bu ndaw rek xam nga boo xoolee ama jeg benn nga xool voilà c'est pour te dire rek tubaab lépp am arrangé disons kii mi ngi tudd William Scall mi ngi dee en mille neuf cent euh, la judd euh, gaañu mille cinq voilà donc ñun aussi war nañu xalaat di def lii cimetière boobu nekk loo xam ne tey nii boo fa boo fa boo fa duggee da ngay ragal parce que Sénégal la ngay gis dugg cimetière di ragal xam nga parce que li ñu koy defee lu ñu ko toppatoo nit bu deewee dañ koy yërëm dem suul ñëpp di ko ñaanal mais après jeex na ñu baax ji dëgg ñooy konni di fa ñëw di defar seen bàmmeel mais cimetière nii la war a men tubaab da koo comprendre moo tax gis da koo defar ba mu rafet ba nga xamante doo ko gis ko ragal waaw ndax fii la ñuy mujjee donc lii dafa bàyyi dafa dafa mat a bàyyi xel dafa mata a xel ñun tamit aussi dañu wara di roy au moins ci li tuba bi ci lu bax li nga xamne mu ngi koy def voilà li boko xolé xamne lu rafet la amna gazo dañ koy dag di topato di jëf ay fleur di ñew di len sersi di set sen newi di ñew di len ñaanal ak yoy yep donc ñun Sénégal aussi tamit les pourquoi pas waru ñu a am lu melni te xamne fi lañu mujjé li moy suñu cœur final suñu destination final donc kep ko xamanteni muy musulman di chrétien ku ci doon di wani doomu adama war nañ bàyyi li xel bu baaxa baax ci li waaw àdduna yëpp fi lay mujje donc baax rek am solo ak yaatal am xol bu rafet waaye booy julli wala ngay dem église sa xol rafetul ban njëriñ la am amul njëriñ danga da ngay yéene ñëpp jàmm waaw même ñi fi nekk sax donte sax gëmuñu di jàmm ñoo xam ne sax gëmuñu wala ñoo xam ne dañu daan def lu bon sax mais xas nañu ba dee mëntuñ ñëw fi donc dañ leen di yéene julul jàmm ak di leen ñaanal voilà donc li la romboon fii nii ma naa def benn video bu ndaw incha allah euh, te di ñaan yàlla mu soppi xol yëpp incha allah ci barke Seydina Mohamed waaw man la seen président السلام عليكم